waaw jërëjëf mbokk mi ala kulli xaal yi eh, am lu aju ci nag gént mel na dañ laa may soxna te liñ la may dalaa bett waaw loolu nag bu fekkente ne yàlla dogal ne amagoo soxna eh, loolu dana wane ne pour nga am ngoro bu dëgër dana xaw a jafe lool bi ci desaa tamit pour nga fexe ba labat soxna ba sëy am ci tamit dana nekk loo xam ne looy jafe lay doon moo tax loolu lu ci bëri nekkul loo xam ne gën na gént ñu may la soxna mu bett la lu ci bëri ay ngoro yu tas lay tegtale bi ci desaat pour nga dugg ci ngoro wala pour nga dugg ci sëy dina nekk mbir moo xam ni mën naa yeexoo mën naa yàgg moo tax anam boobu nekkul loo xam ne gën na ala kulli xaalin bu dee mbokk yi aajo néew nañu ko jël 78 443 75 27 ñi nga xam dañoo bëgg ñu firi leen gént wala ñu seetu leen bu dee firi gént yi dafa am fay nag waaw da ngay fayeeku dañ la fay da ngay fay ñu firi la sa gént bu dee sawal istixaar nag boo wootee dinañ la leeral ñi nga xam noonu lay liggéey bi doxe waaye bu dee firi gént yi pour ñuy woote ñu bàyyi ci xel baax a baax numéro bi mooy 78 443 75 27 incha allah